asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yi ñu suivre si wasaare làmb wasaare TV di baal ñëpp ak di baal ñëpp ak di jéggul nag ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla kon nuñ koy waxee rek koor gi amaana déranger nañ leen parce que tamit am na émission boo xamante ni indi nañ ko muy mbër ak diine amaana gis nañ appréciation yëpp gis nañ commentaire yi gis nañ lépp di leen baalu ak bu baax a baax di ñaan yàlla rek euh, lépp loo xamante ni def nañ ko fa. comme mooy mu nekk loo xamante ni kontaanoo leen ci di leen jéggaluwaat bu baax a baax lépp loo xamante ni tamit gis ngeen ko mu neex leen tamit di wax rek ndimbalu yàlla suñu borom gis nañ ne ni ngeen ciy jàppee di leen bégewaat bu baax a baax a baax amuñu seen fay yàlla mi am seen fay yàlla na leen fay di ko bégee nag moom bu baax a baax leen l'infatigable sama séeréer bu nice bi muy Bassirou Diouf di ko baalu àq bu baax a baax di baalu àq nag monde entier ñëpp ñëpp ñu ngi leen di baalu àq ah, tey nag ah, dañoo ñëw fii ci Asegna ñëw seet si koo xamante ni champion la ndaanaan la mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla gëj nañ koo gis ci làmb ñu mu nekk nag koo xamante ni alaaji la muy alaaji say bata say bata booy booy muy ñu gën koo xam nag ci ki nga xamante ne moom mooy cekk ah wax dëgg yàlla comme que yéen ñoo ñu koy laaj ñu def le tour nag pour indil leen ko muy ndéwénal dañ leen koy baaxee ndax xam naa ne namm ngeen image am namm ngeen ko pour mu wax ci li nga xamante ni moom mooy làmb moo tax nag tey équipe bu wasaare bi yëpp tey ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy làmbam làmb tey ak euh, li nga xamante ni moom mooy nan la gisee làmb loolu yëpp fas yéene waxtaan ak moom dañ koy nuyoo après nag ñu dugg ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi Alaaji maa ngi lay waaw maa ngi lay fay Fatima. Mhm. Euh, yéen waa wasaare. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant. Mhm. Ah, di leen ziar di leen baalu àq. Mhm. ngeen baal ma àq man tamit maa ngi leen di baal àq maa ngi baalu baalu àq Sénégal yëpp. xam naa gëj nañ ma gis nag wante nekk si liggéey bi rek maa ngi jégalu ñëpp di leen baalaax ñoom ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant maa ngi leen di ziar tamit bu baax a baax a baax di leen baalaax si julli bi ñu jógee yàlla nañ fekkee déwén ah yàlla na lépp neex daal ndax wax dëgg yàlla ñoo ngi ñaanal ñëpp daal même feebar bi nga xam ne moo moo lëmbe Sénégal lëmbe àdduna bi yal na ko yàlla yàlla yal na ko yàlla gaaw a teggi si barke Seydina Mohamed. am na solo dañuy euh, fàttali nag ñi nga xamante ni ñoom ñu ñuy suivre si wasaare lamb wasaare TV naam nag wax dëgg yàlla am na lu bari fekkewuñ ko ci moom mais nag xaw nañoo xaw a gëstu tuuti rek euh, Basiru ndax tamit pour fàttali ñi nga xamante ñoom ñooy gars yi euh, dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy palmarèsam Cech def na 13 combats. la def 9 euh, victoires 4 défaites après moom dinañ si ñëw palmarèsam nag moom moo daan Ngataan Ba. Ngataan ak Ibrahima Ba ab Ablaye Gueye Khadim Ndiaye combat boobu bëgg nañ nga leeral ñu ci. komba hmm. boobu noonu xam naa dinañ si ñëw Baye Mandione Cheikh Diène Zallo Souley Dob 4 défaites yi mu am nag Bombardier moo ko daan Mame Ndiambane Tapha Tine Abdou Diouf moom nag mi ngi dugg ci làmb le 1er janvier 2002. ñu grand combat boobu nag ah, Baboy moom moo ko bëre woon ak Yékini mhm. stade Demba Diop dañ lay mhm. bàyyi li nga xam te ni waxal nañ la ko léegi waxam am na loo ci yokk wala am na loo ci wàññi. waaw kon ni ko waxee noonu la rek. Mhm. Euh, booy xool sax euh, euh, li ma laaj sama combat sama combat ma njëkk a bëree ngatam ba ñoo ko bëree. jour boobu la Baboy doon bëre ak ni seen première grand combat man maa bëre deuxième combat bi. maa ngi bëre ak ngatam ba. daan ko si daanaka ay cinq secondes. laa ko daan si laa jógee déclenché. Euh, ñu jox ma ki nga xam ne mooy. maak euh, Ibrahima Ba. Ibrahima Ba laa njëkk a bëreel grand combat. waaw Ibrahima Ba laa njëkk a bëreel grand combat après ba mu bëreeg Ibrahima Ba ba pare. bëri naa tamit beneen mbëru Fass. tur bi euh, Ablaye Gueye bu Fass. Ablaye Gueye bu Fass tamit grand combat lañ bëre. moom tamit ma daan ko Ablaye Gueye bu faas daan naa ko. si laa jógee tamit bëre ak Xaadim numéro 2. Mhm. waaw si lañ bëree stade Amadou Bari tamit ma daan ko. si mhm. euh, laa bëree tamit ak maam Jambaan 2005 maam Jambaan daan ma. si laa jógee nag après nag ma commencé nag di tegal ay victoire. Mhm. waa si laa jëlee ba mujj euh, maam Jambaan. ba pare ba xa maam Jambaan. après su lay doon. non bi moo mujj sax après. waaw boobu yu mujj la quoi. waaw yu mujj la. kon daal palmarès bi d'après ñun lu ñu gëstu. waaw xaw naa méngoo li nga ne moom. xaw na méngoo xaw na méngoo xaw na méngoo waaw. mën na ko léegi combat yooyu yëpp après dañ si ñëw pour décortiquer ko dañ koy fàtte ñuy fàtte li nga li nga xamante ne ñoom ñoo ñu ñu suivre si Wassare Lamb Wassare TV. pour mhm. wax leen ki nga xamante ne moom la ñu invité parce que am na ñoo xamante ne mhm. li moom mooy palmarès bi. waaw ah, Cheikh tey boo doon ñëw lan nga may alaaji te alaaji di ndax léegi nekkatu Cheikh sax mais alaaji mais mhm. ci turu lamb bi la ñu ñëw tey bu mu doon wax kan mooy Cheikh lan nga may wax waaw alaaji bi moom. Mhm. alaaji bi la. Mhm. wante lii si affaire làmb nga may laaj. làmb ji cag mhm. la woon. waaw loolu teewul dinañ la si tontu. li nga xam ne moom lañ def suñu carrière. xam loolu moom bokku la ak dara turu cag bi. dama doon basket. waaw basketteur laa doon laa doon def ma jóge si basket. foofu la turu cek bi njëkk a jógee. ok dañ la ko tuddee waaw dañ ma ko tuddee boobu cek onil la ñuy wax sax gars yi dañoo fa dañuy kii rek. Mhm. ñu naan cek cek cek waaye nag cek onil basketteur la woon. ok waaw mhm. foofu laa la tour bi jógee après mhm. nag si laa commencé dugg nag si làmb. waaw ba mu dugg waaw. mais avant avant làmb da nga làmb kon nan la ñëwee ci làmb nan la ñëwee si yow. non lu làmb ñëwee si ñun mooy ko ñun Pikine lañ dëkk. waa te lu gën a tax ñu gënoon dugg si ci si làmb maanaam Isilu Tyson ak Baboy daf ñoo neexoon si làmb ak Njaga Diop ak ñoom mën Mansour Diop waaw ñoom ñoo ñu yar ñoom ñoo ñu dugal daanaka ñoom ñoo ñu dugal si làmb bañ leen gisee ñoom ñu bëree grand yi après ñoom ñu dem ay itali mhm. ñun tamit ñu ne ah suñu grand yi dem nañ ñun war nañoo mën a jéngu daal jël relève bi daal. Mhm. loolu moo ñu dugal tey si làmb ji. Mhm. mais avant làmb yow da doon mbapat. parce que euh, dañ ne mbapat ñu bari si la xamee kii lu mëne. te yow Pikine Mm-hmm. nga dëkkoon. waaw te ku moom lu ma bëree mbapat sax bëriwul. Mm-hmm. non mbapat lu ma bëree mbapat bëriwul moo ko fi bëri daal. Mm-hmm. defe naa ne boo moytuwul ay ñaar yoon ñett yoon daal laay bëree mbapat lu ma bëree mbapat bëriwul. waaw daanaka dama toppoon gaa yi. Euh, sam benn waaye bi nga xam ne tey mooy commando. daanaka moom laa doon àndal. moom ba mu demee nag après nag si laa ne xaar ma dugg si làmb ji quoi. Mm. waaw man ba may dugg si làmb ji. Mm-hmm. daanaka man dama dugg tuut rek yàggu tuut rek. Mm-hmm. après si laa si laa si laa bëree wante rewul nag maa ngi doon ànd ak ñoom. bu ñuy dem ba pat maa ñoom ñooy ànd xam di bërëndoo di contact di defandoo lépp daal. Mm-hmm. waaw ñu gis ni Pikine temps yooyu am na ay mbër yu bari yu fa nekk macha allah. ndax euh, amaana am na ñoo xam te ne ñoom nga bëree ndool. mën nga see ñoom nga un ñan noonu li mu bëri na man ñu a fa bëri ndool daanaka boo calculé man man man maa fa man doog maa bàyyi nii de ndax ñoom ñëpp a ngi si làmb ji. ok xam la mhm. ay ñoom Tyson Junior. Mhm. yàlla na ko yàlla yërëm. xam la ay ñoom Eumeu Sène yi ñëpp ñun ñoo bokkoon fenn fu ñu nekkoon. ok doon ànd doon defandoo lépp. Mhm. waaw ñun ñëpp ay ñoom boo ñun ñëpp ñoo nekkoon doon doon ànd di def liggéey di entraîner. di def lépp li nga xam ne ñooñu ko war nañ ko def daal. ñun ñoo doon defandoo lépp daal. waaw. sama première combat moo xoolee daal defe naa ne quarante mille lañ ma fay <laughs> quarante mille xaw ma trente cinq mille daal lañ ma fay. kan moo tëggoon combat boobu. combat boobu sëñ Modou ñaa moo ko tëggoon. moo tëggoon combat boobu. Mhm. waaw wante boobu. Mhm. daanaka ñun bëre rek lañ bëggoon. xam boobu da ngay bëgg a bëre ba nga xam ne. Mhm. dootoo xool sax xaalis bi ñu la fay. yow da ngay xool yow. yow nanga nga am victoire rek. wala yow nga ñu nga gemmu rek. sa waa dañ la euh, sa waa kër nga ànd ak say say mbokk ak say. sa koñ. pour dem bëri ji loolu rek moom moo la moo la neexoon waa nekkul woon xaalis bi quoi. Mhm. waaw combat damaa daan. Mhm. damaa daan ngatam ba moom combat bu neex nag combat boobu combat bi stade baa ngi fees dell ndax boobu nii ak Baboy ñoo doon bëri. Mhm. waaw Demba Diop Demba Diop waaw. Euh, deuxième combat. si laa bëree. ak ki nga xam ne mooy Ibrahima Ba. ok. waaw moom tamit ma daan ko. Mhm. waaw. après yow fan nga sentiree ni carrément instant bi man bokk naa Pikine instant bi man bokk naa ci nga xamante ne les meilleurs sa ban combat nga ko sentiree. non sama premier komba man dama dama bëre rek. Mhm. dama bëre rek ma daan. Mhm. ah gaa yi na man nag kaay ma wax la leen ne yow yaa ngi soog a commencé. te nga jëm moo war gën a metti ndax man jamono ji may bëree ak euh, ngatam ba daanaka boobu maa ngi nekkoon si ay entraînement yu metti ba nga xam ne boobu. boobu ngatam ba taxu ma woon a jóg daal waaw loolu moo indi woon tey ma daan rek gars yi nag ñëw taxaw na ma nag kaay bu bëggee bëre nii ak nii ak nii nii ngay def foog faut nga respecter entraînement yi respecter lépp ndax si laa jëlee nag ndax boobu ay champion rek àndal maa ngi ñoom Eumeu Sène ñoo doon kontaangandoo ñoo doon ànd doon defandoo lépp waaw sa premier combat waaw sama premier grand combat boobu maak maag Ibrahima Ba la maag Ibrahima Ba bu Soumbédioune ku ne woo comme ay gars yi ñuy def ay petit combat affaire yooyu. non non deuxième combat lañ bëri. te ñun bëri daanaka ba muy bëri deuxième combat bi boobu combat spécial la woon. Mhm. xam la te dina am euh, benn combat spécial boo xam ne. Mhm. di nga xam ne kii kii grand combat rek la war a bëri. Mhm. waaw loolu moo indi woon loolu. waaw. Euh, ñu ñëw euh, sa combat sa combat ak Khadim Ndiaye numéro 2. waaw combat boobu noonu. da koo kii woon dañ koo njëkkoon a jàpp combat boobu am na. non yow Xaadim Ndiaye ñaari Xaadim Ndiaye la. mais ban Xaadim Ndiaye yow nga man Xaadim Ndiaye numéro 2 laa bëril. Mhm. maa ngi moom mooy ku ñu koy wax Jos. Mhm. moom laa bëreel. Mhm. Euh, dafa naa maa ngi moom. ma daan ko grand combat. yow combat bi ngay wax. boobu maa Xaadim Ndiaye numéro 1 la. boobu Pape Abdou Fall daf ñoo jox avance ñu war a bëre far yàlla def Xaadim Ndiaye am dog-dog. xam nga combat bi yàggoon tuuti. ñu dem ba si biir si la ma Pape Abdou Fall proposé. bàyyi ma njoon après si laa jël bàyyi ma njoon ma daan ko. Mhm. ñu gis ni carrément que ni yow. macha allah gabari beeg. Mhm. lii yëpp mi foon du doon toj. après bu nga bëri bàyyi ma njoon combat bu nan la demee mën nga see ñëwaat. waaw combat bu neex xam nga bàyyi ma njoon. dafa mhm. nekkoon mbër moo xam ne mbër mu saf xorom. gaynde la te wax dëgg yàlla borom baax la. <laughs> Uh-huh. te combat bi lu ma gënoon neex. Mhm. xam moom papam ak sama papa ay xarit lañu woon. Mhm. yaa ngi dégg mhm. jël naa combat ba pare sax sama papa ma ah booy wax ak Khadim Ndiaye il faut nga xam nooy waxee ak moom nooy kii moom expliqué yëpp. léegi ba ñu toogee plateau wax naa loolu. fekk noonu avant ñu toog sax ñu débat ñu def yooyu daal. ma ne ah Khadim sama mbokk la. xam nga kon tey yàllaa ñu boole rek. combat bi ñu war ko bëri affaire yooyu. rek Khadim ñu jo euh, non kii bàyyi ma ñoon rek bàyyi ma ñoon jóge fële ne maa ngi bokkuñu dara <laughs> yaa ngi na uh-huh. ne làmb moo ñu boole xam nga nii ku mën si moroom duma maa mën a ah ah noonu la ndax boobu rek dama doon rafetal rek mm-hmm. ndax li ñaari paa yi nekkoon ay xarit waaw loolu moo taxoon ma moo waxoon loolu daal baay ma Mandione amul woon benn problème wax dëgg te làmb tamit noonu la mhm. làmb tamit boo si nekkee te signé contrat mhm. amatul ay négociation ak amul ay loolu daal mhm. waaw dañ koy saful ba mu saf te loolu moom wax dëgg yàlla moom yàlla may na ko loolu quoi wax di yàlla nit ku ñàkk problème la moom waaw ba mu jógee ci Baye Mandione après nga mu jógee si laa jëlee Zallo waaw. Euh, Zallo waaw mu nekk mbër boo xam ne ñun ñii dañoo sawaroon pour bëri ak moom. Hmm. ndax wax dëgg yàlla carrière bu mu def si si làmb maa ngi koy nuyu tamit di ko ziar. Hmm. ndax maa ngi moom ñoo bokku association. Hmm. Euh, si affaire làmb yi. xam nga maa ngi koy ziar bu baax a baax. Mhm. Mhm. Mhm. ba léegi dafa daf may wax ne daf may jox sama référence quoi. <laughs> ma ne ko léegi yow sama grand nga quoi. waaw léegi combat boobu noonu mu nekk combat boo xam te ni combat boo boo joxoon cër la. waaw ndax parce que Zallo moom kuy bëre ak moom. doo nekk doo doo nelaw parce que dafa mën bëre macha allah. dëgg la ngeen bëree ko nan nan ngeen ko bëree yéen ñaar. waaw combat bu neex ndax ñun xam nañ ki ñuy bëreel euh, def na lu ne si làmb te ñun ñoo war a ñëw dafa am lu ñu xam ne dañ ko war a wane. wax dëgg yàlla mu nekk combat boo xam ne combat bu ñu respecté loon ndax combat la woon xam ne. moo ñu doon déclenché loo. waaw si laa bëreeg moom bëre bu neex yàlla may ma ndam si kawam. waaw si lañ ma joxe Bombardier. après Bombardier daan ma. parce que Bombardier nag da nga ndax parce que cëg boobu làmb moo ñu boole xam nga tey bu fekkoon ne dama daan samay morom. Mhm. ba mu des moom. Mhm. il faut ma bëree ak moom. te làmb boobu moom Bombardier mënu woon bëre keneen ku dul man. parce que taay waa taay bi ak li ma def. ba war a yeg si foofu ndax tubu ma rek bëree ak moom ndax dama daan samay morom. ba yegg si foofu. léegi nag moom mu de moom mu sës fi. ma war a bëre ak moom nag. combat bu metti. waaw combat bu metti après combat euh, Bombardier daan ma mu freiné ma. ñu gis ne téere jàpp Bombardier sax yi ñaar sax seen combat. mais après li gars doonu xaar si cek. parce que tout temps dañ doon bombardier bombardier ñu ñëw combat bi. Mhm. xam nga métti ci yow loolu cek. waaw làmb nag moo demee noonu. Mhm. làmb làmb moom boo déggee làmb yenn saa yi nga ñëwul combat bi métti mhm. nga ñëw combat bi mu mel ni di di combat bi nga doon préparé. làmb moom moo demee noonu. xam nga takkoon naa ndax boobu tey expérience bi moom mu ko ëpp. xam nga bëri naa ak moom bëggoon naa bëri ak moom. bëggoon naa kut kut làmb bi jeex dem na ba téema foo xam ne boobu. mënatuma fa échappé ndax boobu bañ na ba téere yi ma takkoon yëpp benn benn bu nekk nekku si élastique yëpp ay buum la téye na si jafandoo si am na fu mu téye man aw ma fenn fu ma téye mm. waaw boo xoolee làmb ji loolu moo moo moo indi défaite bi daal. ma mm, nekk sa premier kaaw. waaw léegi boo xam te da daan bëri di daan macha allah bu nekk nga daan ko. boo mbaax jee ñëw kaaw léegi après boobu noonu. Mm-hmm. ceeb après boobu ñëwee moom. Mm-hmm. combat boobu noonu yow yan faay nga def yoo xam te tey. soo ko tegaatoon da nga xam làmb moom. boo waree daanu moom cuune ngay doon. yaa ngi dégg. ak loo mën a def tamit. ndax man bëggoon naa combat boo xam ne tey. man yaakaaru moon na combat bi dina jeexee foofu. kon yàlla def na loolu. kon nga xam ne làmb moom moo moo moo tëdd noonu daal. Mhm. waaw nga jógee ci Bombardier. nga jógee ci Bombardier jëlaat kat. waaw ma jógee si Bombardier. Mhm. si la bëreek ak euh, ak su non ci laa bëre ak Tapha Tine waaw tafaatin Tine waaw ñëpp bàyyi ba tey waaw nga jël Tapha Tine hmm. naan combat bu neex lañ hmm. bari maa ngi moom hmm. waaw dañoo xeex nag combat bu neex la boobu moom waa dañoo daje waaw dañoo daje ndax tey combat la boo xam ne ñaari géant la woon yoo xam ne tey kenn ku nekk am na loo bëgg ndax man si defet laa jóge te mosuma tegale deux defet yaa parce que nga jóge ci Bombardier jël ci Tapha Tine. waaw yu métti yooyu noonu. waaw làmb nag moom amul lu yomb daal. làmb amul lu yomb ndax booy xool combat boobu rek la ma nit mas a daan Bombardier daan ma ma amaat beneen combat daanu ko. Hmm. daanuwaat. Mhm. wante à loolu bu ma amee combat mën naa daan ñaari combat soog a daanu benn yoon. Mhm. boobu rek laa mas a tegale deux défaites yu tegaloo. Mhm. waaw nga jógewaat ci ma jóge si Tapha Tine bëre ak su looy dopp waaw combat bi nekk nan. waaw ma daan Souleye Dop. ma daan Souleye Dop <laughs> waaw. ba bu ma jógee sulay Dop si laa mhm. bëree tamit ak Abdou Diouf. Mhm. waaw ñu gis ni. Mhm. Euh, yow da nga treize combats nga def. Mhm. neuf victoire. Mhm. quatre défaites. Mhm. gis ni am nga ci trois KO su ma juumee sama quatre KO. te yow euh, yow. sa diggante ak Abdou Diouf dafa nekkoon combat boo xam parce que da xaw a tolloo taay. dëkk Gunaas. nga dëkk Njëtt Mbaar. waaw boobu noonu. jege combat boobu mën nga ñëw combat boobu kii sax. waaw combat bu neex lool xamoo Abdou Diouf. xamoo làmb moom. làmb mooy boole nit rek. waaw làmb moom mooy boole nit. maanaam mhm. man mosuma woon calculer sax man maag Abdou Diouf dinañ bëre. ndax la. non dañu mësum dama mësul woon calculer xam nga nit tey di nga di nga wax man mësuma woon calculer ne maag moom dinañ bëre quoi. Mhm. ndax maag moom jegewoo ñu jegewoo rek. waaye làmb dina dem ba benn moment boo xam ne. Mhm. Euh, yéen ñaar kenn mënul échapper sa morom il faut ngeen bëree ndax làmb ji ubbeeku. waaw loolu moom waraloon sama komba ak moom tamit. xam la làmb bu bëri coow nag xam la bëri koowu koñ ba xam la. làmb nag boo la boo xam ne danga koy teg ci cadre làmb rek. làmb la boo xam ne ñëpp gisal nañ ko seen bopp. Mm-hmm. xam am na yoo xam ne moom doo mën a commentaire yenn affaire yeeg waan làmb boo xam ne tey. Mm-hmm. defet la defet la. Mm-hmm. xam nga defet moom loo ci mën a wax tamit defet la rek wante ñaam bi moom ñëpp gisal seen bopp. làmb yi pare que euh, dañ na cadre yoo xam ne. lu ci ëpp solo rek mooy cadre sport bi. xam nga sport ay sportif lañ. ñun affaire sport la ñuy def. xam nga làmb nag di nga gis ñeneen ñu bëri di si def leneen loo xam ne bokk ci. xam la muy ay supporter wala ay kii ak yooyu xam nga la. wante Abdou Diouf amul problème man aw ma benn problème. xam la te ñun ay doomu ndey lañ. xam nga làmb moo ñu boole woon ba mu jeexee tamit jeex na. xam nga làmb bëri woon na coow nag wante après jàmm ak salaam rek moo si mujj moo si mujj. waaw ñu bari na ceek sa làmb. Mhm. gis nañ ni kii quoi comme xumb quoi xumb daal dafa. dafa xaw a kii quoi dafa dafa xaw a tooy quoi ci laamam day ñëw ndeysaan xam nga ñëw kii par rapport ak ñeneen ñi. Mm-hmm. bu ñëwee xam nga kumbal. affaire yooyu day ceeb chaque boo gisee ndeysaan. Mm-hmm. moom daal fi mu resté rek la resté. waa nit ku ne ak ni nga juddoo ak ni nga yaroo rek. Mm-hmm. xam nga la. wante li nga war a def. da koy def ba mu ful ak fayda de waaw. man nga kii ak yooyu gars yi bu ñu fecc man nga def ñoom ñuy fecc ñuy di kii ak wante bu desee si biir géew bi. Mhm. man mosuma arrière benn mbër de. kon dañu ñaan ah man moom mbër man ban mbër moomu ma sa dàq wala ñu dàq ma wala arbit dàq euh, wala arbitre dagg ma kenn mosuma dagg. Hmm. kenn mësuma yóbbu si saako. comprendre mhm. nga. nit ku ne moom ak sa naturel ni nga mel moom noonu nga mel. yaa ngi dégg mhm. wante mbër mosuma dàq xam la mosuma jéggi saako kenn mosuma dagg te bu arbitre bi ne prip ma dal sama ma dal sa kaw mm-hmm. waaw xaw ma nag lu ma fay jële mm-hmm. man bu arbitre bi ne prip man maay dal sa kaw doo dal sama kaw mm-hmm. muy ñëpp na xoolal ma sama combat yëpp nag ndax mos naa arrièral mbër xam la wala mbër ki wala mbër mu njëkk na ma attaqué waaw est-ce que ah gis ni xam xam làmb moom ni ma gis ni ma mel nii damay ñaan yàlla ba may dee nii laay mel. wante du ma ragal de. Mm. <laughs> waaw ñoom kay xam nga mbër yi kenn ku ne xam na sa moroom mm-hmm. yaa ma de làmb nag làmb la maanaam bu weesoo cadre làmb nag. Mm-hmm. xamante nañ suñu biir. Mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla ba mu juddoo ba ba ni ma màggee nii. góor mosuma dàq de waaw. ñu bari ne sa làmb li ci xaw li ci gën a xaw a kii tuuti mooy El Hadj si la bokk. ñu ne El Hadj Diouf dafa def benn instant topp El Hadj ba fàtte carrière waa xam nga am na ñuy wax loolu wante xam ma man teguma ko si loolu ndax hélas mhm. sama xarit la xam la euh, liggéey boole woon nañ tamit. mujj nag nekk sama waay wax dëgg yàlla mhm. taxawu na fu nekk xam la fu ne yóbbu na ma fa. Mhm. nit kooku moom aw ma fayam ko nit moom danga koy da koy ñaanal rek. yàlla may ko gudd fan rek ak wér. waaw loolu rek laa mën am si lu ma koy wax ak moom muy moom ak jabaram. xam nga ndax dëgg yàlla. liggéey moo ñu boole woon waan liggéey dafa dem ba mujj bi ñun jur lu ne waaw ma jël sama rak yóbbu foofu xam nga maa érasé wu amuñu benn problème. Mhm. mosuñu am problème. mais kon deux heures jow boobu ñu ne ko topp ba fàtte sa carrière. de non xam nga loolu nit ñi dañ koy wax xam nga la. Mhm. hélas vacances la doon ñëw fii. xam la day ñëw vacance fekk làmb ji ubbi làmb ji tëj bu làmb tëjee ñu dem amuñu lu ñu liggéey ñu dem ñu ànd ak moom yor sécurité am moom bu daanaka moom élage mu fee def lu mu fi def ba def def def un mois la fi def après day ñibbi Angleterre ñun ñu nekkaat fii nekkaat suñu entraîneur te man du man man man ay ñoom Malal Ndiaye ay ñoom commissaire ay ñoom Tidiane Cheikh Omar Boy Ndiaga Ndiaga Diop ñoo doon ànd ak moom waaw di liggéey loolu liggéey moo ñu boole ak moom rek pon yeneen kii rek. nekku mm-hmm. nekkuñu woon koo xam ne dañoo ñëwoon uniquement di liggéey pon boîte liggéeyuñu woon boîte. Mm-hmm. liggéey ñu woon boîte xam nga liggéey boîte moom mooy nga xam ne yow sa guddi yaa ngi foofu. Mm-hmm. ela benn un la fiy def ñu ànd ak moom. bu jeexee day ñibbi ñun ñu toppaat sañu entraînement. loolu dong loon amul leneen si laa ñëw ba ma demee ba nga xam ne tey euh, bëgg naa siiwu sama carrière wala ba nga xam ne moom bu ñëwee fekk aw ma jot. sama rak moo doon ànd ak moom ak ñoom Malal Ndiaye ak ñoom commissaire ñoom ñoo doon ak moom. ñu liggéey ah. waaw. beneen bi mooy dañ fay def lu kenn deful am na ñoo xam te sax am nañ ko ñu ngi fi mais ceeb gars yi ne defet yi nga tegle. Hmm. moom ma dem ba benn ay instant ceeb mootul di gérer loolu sa digg carrière. Hmm. nga war fee mënoon a bëre. Hmm. ba nii gars yi dañ doon wax ceeb ceeb. waaw léegi defet yi nga tegale. waaw ñaata defet laa tegale yoo xam ne kon xamoo tegale. dangay wax ne man ba ma dalee bëre. damaa bëre daan ba si ma daan ay trois combats am benn défaite. ma demaat ba si biir mosuma tegale deux défaites yu tegaloo. mbëgg nga xam ko bàyyi bàyyi ma ñëw bàyyi ma àggale. waaw comme par exemple poids lourd fi ne. waaw ceeb dafa ba benn instant xam ni. Mhm. mënatul leen dara. Mhm. sa digg carrière. waaw gars yi jékki-jékki rek na ceeb alaaji. <laughs> ñi ne ah. kii xalaat dañ nga am luñ ko dee. <laughs> wala daa am lu mu gént. Mhm. wala pourquoi mu allah. waaw waaw xam nga léegi nag moom laa lay tontu. Mm-hmm. xam nga sant sant yàlla. Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. moom laa la bëgg léegi man tegalu ma ay défaite Abdou Diouf moom a daan avant Abdou Diouf ma daan su looy dob laa daan Abdou juuf daan ma pour mu benn défaite boobu. yaa ngi dégg muy 2013 defe naa. léegi yàlla def ñu affecté ma Cour des comptes. may liggéey Cour des comptes ndax man yàgg naa liggéey maanaam maa ngi woon fonction publique ma laa jóge fonction publique ñu affecté ma 2003 kii bi noonu ñu affecté ma Cour des comptes ma nekk Cour des comptes. Mhm. ba ma nekkee Cour des comptes ba dem ba si biir nag. Mhm. après si la ma yàlla def ñu jox ma billet màkk dañ ma joxee billet màkk nag. Mhm. ah ma dem ndax tamit bu la yàlla wooyee da koy dem wuyu ji. kenn du rejeté yàlla de. waaw macha allah gabri bi. waaw ñëpp xam la. Mhm. ne fa tegg laa bëgg dem màgg. waaw loolu dara xamoo tey loolu du dara. ba yow tey bu instant bi bu ñu la joxoon. <laughs> non parce que ñu bari xoolal ñu bari boo nee non ceeb dafa dem màgg moo tax bu bàyyi la parce dafa am ñoom tamit dañu bëgg ceeb. Mhm. bëggoon koo gis ci làmb. xam mhm. man mënoon naa dem màgg ba pare. ñëw yeggale sama bëre. ndax man bu ma ñëwee laajte naa. ñu ne bu neexee nga bëre. waaw ñu ne bu la neexee nga bëre ndax sa liggéey la. wante nag man man sam bopp man maa dem jàkkaarloo fi yonent bi nekk ba pare. moo ñëwaat tamit di ngembuwaat naa damay bëre. loolu moo tax ndax avant may dem tamit bul fàtte ne amoon naa combat. yaakaar noonu boobu. Euh, <laughs> Lac man la njëkk a man la euh, sama combat bam lañ njëkk a tëgg. avant muy bëreeg euh, avant muy bëreeg euh, booy bi nekk kii. Moussa Ndoye. déedéet avant muy bëreeg ki nekk rakku sos bi. ah Garga. waaw. Mhm. dama waroon a bëree ak moom. Mhm. far yàlla def promoteur bi joxoon ñu avance mu dem ba si biir mënul yeggali combat bi. Mhm. fekk préparé woon nañ combat bi daanaka ba combat bi lu mat un mois moo si des. doon nañ publicité combat beeg yëpp. xaw un mois moo si des xam nga après dégg naa yóbbu reliquat bi affaire yooyu amul date après ñu mujj euh, kii contrat kii boobu daal. Mhm. après combat boobu noonu la mujjee niile. Mhm. waaw mooy ba mu bëree ak Abdou Diouf ba pare. Mhm. amoon naa fi combat. léegi après léegi après nag laa dem Màkka ba mu demee Màkka ba ñëw. yaa ngi ah, daal ma toog ba si yàgg mën a daal. ndax sama ménager moo ngi si doon waxtaan ak man sax. na ma mën nga bëre xam laa toog mën a daal mën na wax dëgg yàlla rus naa tamit di dem naa damay damay waa waat di bëre. loolu dong moom loolu dong la du du dara. après waaw ma décidé ba ma demee màkk daal ba ñëw mën a daal. Mhm. yàlla dimbal na ma suturaal na ma dem naa ba màkk jàkkaarloo fi yonent bi ne. Mhm. wax dëgg yàlla sama sama ngor moom mënatuma may. Mhm. may dem du dugaat si si làmb. naa damay ngemb pour bëre loolu nag moom moo tax waan du question dara. waaw te di nga jékki-jékki am parfois nag deret ji tàng tuuti nga bëgg a bëree yooyu noonu. non non xam nga sant yàlla rek xam nga nit moom. xam nga ah. mbër lépp lu ñu am tamit mbër moo ñu ko may. dëgg wax dëgg yàlla lépp lu ñu am duñ ko xalab. Mhm. dañuy ñaanal tamit nit moom boo siy def rek. Mhm. nga génn si tamit ak jàmm ak salaam. Mhm. wax dëgg yàlla yàlla suturaal na ma ma nekk sama diggu doole. waroon a yeggale sama carrière làmb yàlla dimbali ma ma dem si màkk ma ñëw bàyyi loolu yëpp tamit sant yàlla la waan demuma dem ba bàyyi na xaar ma xaar ma ñëw dem wax dëgg yàlla mënoon naa dem tamit ñëw ba pare na damay bëre wante ngor daal mooy mayewu ko daal daal moom moo moo tax ma bàyyi mais dem liggéey bi <laughs> xam liggéey bi liggéey bi liggéey bi daanaka dalay tënk ba nga xam ne mhm. am na yu bëri doo ko doo ko mën a def